tànk yi daal di tolloo ñu daal di sol seen yére yu gën a rafet ñu nekk ay junni junni nit daal di teewe julli gi ci bile juma ay njiitu parti politique ak yeneen personnalité yu dëkk bi daal di koy fekkee si balaa imaam bi di ñëw nag njàngum alquranul karim ak ay tuuri yàlla képp lañ doon dégg. allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira ñaari simili gannaaw ba imaam bi ñëwee nag ñu daal taxawal julli. xutba bi nag mu daal di koy tënk ci ñetti poñ bi ci jiitu ne respect bi ñu war a am ci way jur yi. ku bugg sa njaboot suñ ñëwee nga am njaboot ñu déggal la da ngay déggal sa waajur kamaatu diinu tadaam ni nga koy ni ngay boot ni nga leble loo leble rek moom lañ lay fel yàlla ku la ngërëmalu yàlla mu ngi nekk si ngërëmalu ay waajur merub yàlla mu ngi nekk si merub ay waajur. li ci topp moo di ni ñu jëfandikoo xarala yu yees yi. li ñuy wax net ngeen bañ a topp yooyu ndax léegi loolu moo yóbbu xelu xale yëpp xale yëpp dof nañu si loolu li ñuy gis li foofu loolu la ñuy wax da ki génk jékki-jékki nag gis ñu ne la diw wax na lii te yaa ngi ko gisee si internet xamuloo mooy kan. bi ci mujj moo di naka la ñu tasee xabaar yi. kon looy wax na nga xam li ngay wax soo xamul li ngay wax noppil te looy wax li su dee ayiba la même soo ko xamee am na bul ayibal kenn. ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa ne laa laa tuuzu ibadallah bu leen lor jaamu yàlla yi bu leen wex wiññi seen sutura. Eh, ki fi nekkoon candidat benn Bokk Yaakaar ci élection ci jongante njiitum réew yi ñu génn moom nag di xam ne nii li imam bi wax lépp incha allah dina ko jëfee itam di woo ñeneen ñi ñu daal di def naka noonu. mënatuñu dund te duñu ànd ak ni jamono di doxe waaye it nañu xool li nga xam ne moom moo ci baax. di ko jëriñoo ndax it euh, ñu jàngal ci xam-xam lu bëree bare bëri. ñu ñaan yàlla nañ ko déggee yàlla na ko ñëpp déggee noonu. niñ ko tàmm gisee fii ci Sénégal nag euh, tabaski ñaari yoon lañ ko daal di màggal euh, xalif général bu famille omarienne di xam xamlewaat ni kër diine yëpp ñoo ngi ci waxtu gu baax gi ndaxte lii di tabaski ñetti fan lañ ko war màgg.